dama ko gis ko bu ma gën a rafet ci kii euh, leneen lu dul yeewi askan bi considéré wu ndax yeewi na sax bu deuxième tour na lay am génn moom ngeen war a suñu wax wax dëgg yeewi askan bi existe na parce que ñi ci woon ci yeewi askan ñoom ñoo taxawal ci te ñoom nee nañu ubbi na ñëpp seen bunt contacté nañu maanaam bokk waaye ñoom tamit am na lu ñu leen jàpp loo xamante ni askan wi gis nañ ko ba tax na tey tasaaroo. waaw mais ku baax. Ah, nekkoon nekkoon mooy. Moussa Camara. waaw ma bëggoon wax dara. moom lay def ni euh, ku baax. da ngay poser question